yang bay dong ya budi weh ah Fila, fila nyam gini. Wah, sama nih. waaye yow dajul nga fay def trop arrêté ma lii ribira mag ma toll na yow toog si garam place yi feet kon fi romb lu ñuy wax waari ay ngir yàlla yonent bi amal fulaak fayda sa bopp faramarin xam nga ne doo màggatum di lislaam de faramarin wonu la yaakaar si jàkka yi dee la wallahi taala booy yow yaa ngi ci ay booy wa vraiment réew ba ndey lim de bien ko yow waa da nga doon fecc nii waaye da nga doon fecc waaw yaa des si moom moom moom xam ma kanaay man pare naa si booy pare nga si booy bi maa la ko wax moom moo la gën a pare si yow moom yëgul saa yaa ngi dund yow man naa yëg maa ngi dund waaw moo ma gënal yow yëg nga ko mu ngi man ma ma bañ maa yëg ma gënal waaye lan la waaw lu tax kal mu toll ni moom di fóonante si réseaux sociaux ba ñëpp di ko gis ngay ngay ngay kii waaw bu ko waxaat loolu di pourquoi ngay jël sama waykat di ko interpréter ni sa waykat a kenn defut. kan moo foonante. kan mooy laba laba. waaye sekk mooy def muñ muñ waaw ak góor. ma soo ko si réseaux sociaux yi. waaw kay mun na foonante yow ku am na jabaram kay. góor dana góor dana foonante. góor ak góor. fan la ko gisee yow. Ah, ah, góor jigéen ñi. waaw fan la ko gisee loolu yow fan la ko gisee yaa ko gis waaw yaakaar tas na de. ay jógal fii waay yaakaar gi ma amoon si moom lii moo tax sénégalais yi doon kenn du dem wallahi lazim. moo tax ku ku sa do ko pour ngeen jël ko day day métti. ndax la parce que si doole dem lu seen yoon nekk. taw la nga ñàkk fayda laa la wax. nit soo xam ne doo dem si lu seen yoon nekk renaa dañuy xam si daaw booy bi li muy def na ko ba. lan la def na seeral laay tam. waaye lu mu def rek ngeen ko doomi jullit du ko def. yow doomu Thione Seck bii ñu tëj bi temps yi passé noonu boo xam ne Europe la nekkoon si si si di def euh, football di jàng. waaw waaw mu ñëw fii ba kees ñu tegu ñu ne daa jël lu tey imaam yi waxuñu loolu. lam def ban ñaf ko seen sànnaar waxu ko. deful dara laa wax. waaye bu nu fontoo wa eh booy wuy ma. boo yor lu waxuñu ko lu tax waxuñu dara booy boobu. lu tax nekkuñu di wax ci booy boobu. sa waykat daal moo fi fonante ki jigéen. waykat bi deful dara waaw waykat bi daa xew. Amar Pène jaar na fi ba jàll. baayam seera na parmarèsam ba rafet kenn mus ko koo kii euh, jiiñ Youssou Ndour waxi nopp. yow Baaba Maal ana Aliou Mbaye Nder. waykat yi yu mag yëpp gërëm nañ si Wally yow gis nga ko yow. Ah, waaw loolu am na moom. waaye léegi nag eh eh buy eh, ma booy bi moo tay. moo tay Sénégal gis nga li wax. laay ñëw war a du dem. nan ba booy bi mu seeral laay fa. waaw waaw waaw moo xew. moo tay de papaam a xewoon. waaw na xew na. léegi lu mu ku ni góor jigéen la daal na ko jox sa doom. voilà une minute rek. ñu xool ñaf seen. sànqal deux deux secondes wala une de. une minute bëri deux secondes rek de la relation. Sénégal moom nii la kawleel waaw kawleel. booy bi bëgg a décourager loo. wallaay yàq fam. wallaay ko nangu. ah mel ni daal bi téye ko. mel ni ku téye man 36. billaay wallaay waaw. moo tax moo tax papam way ne. waaye rek lay def. bàyyi mu gërëm papam way ne papam nee na borom xam nga yow yow yooyu. man de kontaan naa moom. billaay wallaay. fi ko téye fa de. nii la waaw. bul topp ñooñu de xam naa da ngaa dégg ñooñu di wax foofu rek moo tax nga ñëw fii di ko di ko di ko lii naana yi. nu may def Jamil Fall ma woo. ma war naan ma booy bi réseaux sociaux fara faso. réseaux sociaux yi dañuy fet waxuñu dëgg sax dañuy montage lépp léegi yow mën nañ la montage yow di def sa kanam bi jigéen ñu ne yow da ngay matériel dana yor entreprise farama ah, di fay ay employé war ah. di di ah. jullit teg sa mënis saari naan da ngay fëral sag magal Tuubaa nga yóbbu foofu xaalis ah ah góor ak ngay dimbali jaam yi waaw jël ay ay ay ay boofil ay ay handicapé di leen battere ni xaalis ne leen demal nga wut siis boo xam ne da lay kuraa kuraa moo lay nan ba booy bi waaw il est doomi géwal nga defal la neex. wax vraiment ren nga defal lu dara. defal lu la neex wax si doomu maa fa daje. dara dara coonay sa baay. waay yow Youssou Ndour gërëm na la. wallaay wallaay xaar ma ah, jaagab. te noonu la xol bi rafetee. Omar Pène yaatu la yor. Aliou Mbaye bi yaatu la yor. parce que soo gisee Sidi mu ne la am woyal. maa la ko première partie woyal boo booy be moo ko lancé. waaw ci tànkam la jaar am na ngërëmam kon ne El Hadj Keita moo ko laxase stade Demba Iba Mar Diop inu do bu parti bi eh, euh, barki démb rek moo ah, ko jox première partie ne ko wéyal wàccee waaw entreprise faramareen wallaay nan yàbbi booy bi wallaay day liggéey doon leen ci mi la dëkk te lii justice bi da see war a jóg say ñi dañuy wedd yàlla quoi yàlla day may nit dara ñu nekk di ko xeex di ko xeex di ko ba dañ koo bañ de waaw justice bee si war a jóg ku dal si booy bi mu porté ma doon bàyyam dama retiré pelante la xam ma nu waaw war ko war retiré nan ñaf gaay sim sànnaam ba booy bi xam nga moo ko kii quoi bàyyam wuy ma waxtu bi jot na nañ dem julli ji julli ji waay